assurer sen kaaraange tay machallah allah ngi ci sécurité yéen ngi am ñu leen di garder di sur assurer sen sécurité machallah mais sénégalais aussi yelloo nañu ci sen liguey ngeen assurer sen kaaraange ba tax na ñoo ngi lay ñaan monsieur le président. ngeen fexetu pour yok karange réew mi ndax insécurité bi ci sénégal mi ngi bëgg jéggi dayo tey képp kuy jigéen tiit nga ndax danga naan tay buñ ma jàppee rey ma du dikke dara loolu waral na tay ma yëkkati sama kàddu pour ñaan monsieur le président ngeen fexe pour assurer kaaraange réew mi ndax insécurité bi bari na Sénégal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggalu bu fekkee ni waxe naa nenn wala am noo xam te defe naa ko nu ma warut a defe mais maa ngi wax daal jaajëfal ñëpp ci déglu bi wasalaam